noo tey duma def sax coiffure damay dem ci benn cordonnier boo xamante ne. ah, ah bon ci affaire artiste xam nga rek suñu suñu dëkk bi lu ne am na fi dama bëgg nag ñu bàyyi dem ay dëkk yu mag yi. te consommé yu nekk suñu dëkk yi. ah kii daal bi ma waxee santé ba léegi waxu nañ toog fii Sénégal nañ def lii rek moom nee na léegi changé na avis. damay toppandoo <laughs> léegi nag bu leen mardi incha allah ma ñëwaat ci yéen temps yéen laa jëlanteel góor ñi. bon da nga da nga même ci góor ñi la tamit moom laa wax nii di d'accord c'est sama xarit bii Pape Samba Dieng affaire bi rafet na de voilà tonton Daouda tegal ñu suñu élément bi demoon nañ ci benn kii rek ruq bu sew boo xamante ne ay baax baax lay def. macha allah loolu. tey nag artisanat la ñu wax buñ ko waxee mën nañ ne daanaka consommer local produit yi nga xamante ne si suñu dëkk bi lañ koy defee ba tax na nag tey dañoo ñëwoon fii nii seet si Pape Samba Dieng koo xamante ne benn jeune la dafay dox ci li nga xamante ne mooy consommer local ci mbirum dàll yoo xamante ne si suñu réew mi lañ koy defaree Pape Samba nuyu nañ la. ah Lary naa la. si loo nekk naka koor gi xanaa koor gi dalaa jàpp. non mais tuuti rek. tuuti rek. ok tey nag bi ñu duggee ci boutique bi gis nañ ne yéen da ngeen def ay confection de chaussures ku nekk mi ngi toog ñii wa ngi toog di daaj. ñii di def collage am na sax yoo xamante ne pare na ba pare yow lii danga ko jàng wala don bu la si yàlla may la wala da nga ko def sa passion rek bëgg ko expliquer ñëw sa jaar-jaar ak nan nga mënee lii. d'accord man nag lii moom vraiment mën naa ne duma ci dara quoi vraiment dañoo dendoon ak benn cordonnier kër sama frère bi nii ngay gis moom moom moo nekkoon ci atelier boobu. nekkoon apprenti cordonnier boobu léegi ñoom des fois de temps en temps bu ñu daan bëri commande comme foofu lañ doon fréquenté dañ doon jàpp ñiy jàpp ci lii ñiy jàpp ci finition yi pour affaire yi gën a gaaw léegi moom nag moom bi mu beree ay yëfu boppam mu woo ma pour ñu xool moom bu nekkee ci lu jëm ci wàllu confection beek yooyu noonu man ma jëm ci volet euh, communication ak yeneen ak yeneen. léegi li ma la bëgg a laaj mooy yéen seen produit yi ngeen koy defee maanaam matière première bi muy der yi wala yéen a xam lan ngeen koy defee ndax da ngeen dañ leen koy indil à l'extérieur wala produit yi la yoo xamante ne si suñu réew mi nii lay jógee. dañuy jël yi nekk extérieur jël yi nekk fii boole ko yëpp. des fois di nga gis dinañu liggéey ay pagne tissé pagne travaillé ak yenn wax ak yu demee noonu mais du ñu tey tamit ñu jël euh, li nga xamante ni moom mooy produit yi nga xamante ni feneen lay jóge loolu yëpp dafa bokk ci euh, diversité ak modernité parce que dañuy jël ñun li ñu ma am fii ak jël lu moderne li xew ñu boole ko mu joxe li nga xamante ni euh, ñëpp di mën nañ ci gis seen bopp manaam xam nga ku nekk keneen ku dul sénégalais mën na ci gis boppam sénégalais bi tam daf ciy gis boppam te ku ko xool xam ni fii Afrique la jóge tey nag lii lañ leen indiloon si seen rubrique bon plan ñu àndoon si ak Pape Samba Dieng ak équipe bi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw ndax nee na moom du ci dara te doo lay jën ndox la ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax jaageen jëf ci teewaay bi ak dalal bi ngeen ñu dalal merci beaucoup ba ëllëg ak jàmm si suñu beneen bu bon plan si King Morning merci. ah mais... là les da nga naturel de naturel trop mais il fait de belles choses hein, vraiment. Oui, il fait de belles choses. Ah voilà mon Pape Samba le tout doux. déjà ça dafa am li xamna passe wala mu doon lo ci am amour ah bëgg ko mom ak frère am liggéey mhm. néna sax mom du dara frère am def oui ngay quand même mu ting ting. quand même xam nga am na ñoo xamante ne kenn mënu leen a teree def dara boobu commande yi bëri na tabaski bi mënuñ faa toog ak temps biñ fa def yëpp dama jàpp ne mooy charme bi xam nga lu tax tey boo ñëwee ci ci ci ci docteur. Mhm. foog perfusion ak pikki yi def. moo tax du ma leen seeti yow bëggoo pikki kattan yàlla rubrique docteur moom naa ko bàyyi ak may tere. <laughs> ah man daal dinaa campagne de vaccination fii ci King FM non affaire bi bare lay def xam nga lan nga war a def doo de sang nga war a def dama koy def damay indi fii biir king fm bii nii nii nii ci plateau matinal bi nii ay médecin yuy ñëw sol seen i équipement indaale seen yow yow maytee waa noppi naa dal yi rafetul laala pap samba yii lay def ñoom dañuy defar ay loubutin yamuñu ci lii dañuy defar ay scarpin ay carax la may loubutin loubutin xamoo la la may loubutin kañ waaye xanaa contrefaçon la mais loo xamante ne si suñu dëkk bi lañ koy defaree

ne pourquoi pas ñoom li nga xamante ne am si seen dëkk ñoom ñu exploité ko exploité ko du ñu dem rek di wékk seen jënd ak seen njaay yépp ci bitim réew. boo dégloo si euh, rub kii bi interview bi nee amna am na ay matières yoo xamante extérieur lay jugee mais bariwul. bu ko defee dañuy jël li am foofu ak li am fii moom la ñuy jël boole ko defar ko ay dàll mi ngi mel quartier général Pape Cheikh ci dëkk bi lañ ko mhm. dafa rafet ku la newul lii sénégalais Alden voilà bu mu sol du salaat boobu te chaque jour bu mu sol dafay gën a rafet ay jeunes yoo xamante ne dañoo xarañ am compétence ci seen liggéey ñoom ñoo fi nekk mhm. pourquoi pas ñun du ñu dem di seetu ñooñu bu ñu bëggee jënd ay dàll ñu dem jënd loo xamante ne ci suñu dëkk bi lay jógee loo xamante ne dafay yokk suñu koom-koomu réew gis nga boo demee dëkk bu mel ni Maroc seen réew dafa am koom-koom parce que xaalis bi dafay circuler ah. lépp lu fa banque yi am ci seen dëkk bi lay circuler western amu fa yenn banque yoo xamante ne xaalis bi dafay génnee amul. non ñooñu kay moom mujj lépp boo bëggee jëlee xaalis sax dangay dem ci benn koo xam ne dafa am boutique Sénégal nga jox ko temps moom mu dem. échange la ko en dirham moo tax seen dëkk bi dafay am koom-koom. Nigéria rek noonu lay demee noonu lay demee mais pourquoi pas ñun Sénégal ñun ñu def comme Pape Samba mii nii li muy def yokk suñu nous réew té lolu ñun jeunes yi ñun ñoko mëna def dafa yor bureau am dafay dem liggéey ji su wàccee 16h day ñëw tok su meeku ci ginnaw comme yene yépp daal di dem liggéey jay ko té dal li dafa civilisé si dafa civilisé Je hum. da koy sol jigen da koy sol ça dépend dañuy défal xalé défal mak am nañ façon yu bari hum. man li bëggoon laaj rek laaj moy euh, comme li nga wax ni donc déjà exemple la hum. dem dem nekk ci mhm. ci ci leneen euh, mais par rapport ak ñoom ci ci ci wàllu quantité est-ce que ci walu ay commande mhm. ah yoo xam ne dañ koy am ci walu quantité euh, nan lay nan lay demee est-ce que jël nga ko laaj ñoom nan lay demee est-ce que ñu ngi ciy gis seen bopp ñu ngi ciy génn parce que comme li nga wax ñu bëri euh, du ñu dem di ko jënd consom consommer local bëriwul ñu koy def est-ce que ñu ngi ciy génn ko laaj nga leen ni ñuy def. si dañ ciy génn parce que ñoom bu fekkee ne dangaa dem am na ñoo xamante ñoom dañuy defar ay dàll pointure parce que buñ ñoom am nañ ay genre semelle yoo xamante ne sous forme de pied la. bu si nekk am na pointure boo xamante ne moom lay correspondre du coup dañuy defar yu dàll en stock teg ko fa yow boo ñëwee di jënd tey da ngay jëw rek da ngay ñëw rek natt bu la jot ñu jaay la ba pare dañuy def ñoom vente en ligne Ah, waaw c'est bien vous koy def vente en ligne la ñuy vous def sur commande bu ñu vous nga gis bi nga bëgg nga di nga soit da ngay si wala ñu livreur bu vous 50 non 52 52 52 pour nga dem il faut nga dem ba bu jël carton jël teg sa tànk daal di koy rëdd. ci loolu nag après la ñuy sukkandiku ba def xel la yow pointure bi nga xamante ne moo correspondre ak sa tànk. c'est vrai que avant ah dañ doon defar ay dàll yoo xam ne dañ koy coller rek à la limite mais dañu dem ba rendre compte ni que dañu doon perte ay clients. parce que mhm. qualité bi nekk fa woon. Mhm. léegi nag boobu ñu xamee ni que am na enjeu économique. Mhm. si le cordonnier dañuy tamit lëkkaloo. di def produit yu baax di importer qualité yu baax. pour copier marque yi gën a ràññeeku si àdduna bi et ça c'est très bonne chose. ba hein. pare léegi dañu am ay machines yoo xamante ne boo defaree dàll ba pare ci machine bi ngay dugg dañ koy jël limé dàll bi defar ko ba doo ko mën a xam te dàll cordonnier yi dafa man personnellement personnellement ku ci bàyyiwul di jënd suñu dàllu mbokku étranger yooyu nga xamante ne centenaire la ñu nekk moo fi indi ay rhumatisme yi. Mhm. di indi ay problème lombaire. plastique recyclé la waaw da ngay am ay da ngay sol dàll bi sa tànk tëstën bi di métti. loolu de mooy te gis nga dàll boobu boo ko jëndee ba mu yàq commencé di xoos boo ubbee dàll bi da ngay gis benn weñ bu ci nekk. waaw weñ boobu da ngay dox muy mas sa tànk bi. Mhm. nga naan sama tànk dafay métti sama ndigg dafay métti sama lii fekk ne weñ boobu noonu moo mel ni imagine weñ nga xam ne bu nee gërëc sa yaram bi day daw. day mel ni benn courant mooy ñëw di mas sa tànk bi. Mhm. da lay ndànk ndànk te doo ko xam te doo ko xam te dàll bi day rafet rafet ba nga xamanteni ci te 2000 francs lay jar. waaw mais c'est que aussi c'est euh, que aussi la tant tank dal day noy lolu d'accord là mais aussi il faut ñom aussi ñun les sénégalais yi fi nek ben ñuy def ay produits de qualité. oui ben deuxièmement ñu bañ ko chéral mhm. nañu waxante dëgg. mais daal de cherul Seydina. non non xaaral rek xaaral rek euh, Lary ñun ay sénégalais lañ mhm. Sénégal il préfère investir peu gagner beaucoup. Mhm.

sérieux bi ñu ci def parce que yàlla dafa bëggul sérieux bëggu àq nga nga bañ koo que mhm. maanaam def ci liñ ci war a def mhm. soo ko jaayee nit ki mhm. xol bu sedd boobu mu ciy am yalla day ful du barkel affaire bi. mais man te ñëwaat après la kay moi j'ai vu beaucoup de gens par exemple man am ay yu ma jënd yo xamné ay boy dañuy ñëw dañuy japp dañ may nax mais kula jappé dof fek wut garab mhm. bi day ñëw ma grand original cuir ainsi de suite. c'est pas de cuir bi synthétique bi la. vous mhm. y comprendre ils koy sol tout bi c'est très important que nous wax parce que tey artisanal bi dafa war a nekk lu ñu war a exploiter fii ci Sénégal mhm. parce que comme on dit suñu koom-koomu réew la te tey jii nii c'est bien beau nga sol ñu ne la foog lan nga sol nga ne man sénégalais moom ma ko defaral c'est une fierté mais derrière aussi y a le sérieux dont tu es en train de parler Seydina bi nga xamante ne les jeunes ne le font pas parce que Sénégal dañoo am mauvaise habitude bu ñu commencé defar benn affaire mu baax ah. duñ ko yeggali mukk benn période lañ koy def am ci benn revenu derrière rek ñu commencé négliger mbir mi après ils veulent que les gens continuent tay tubaab bi tay même bu fekkee wala européen wala ku munti doon bu fekkee ñuy jaay lu cher di ñu jaay lu importé mais dëgër na. des fois nga jënd dàll boo xamante danga da nga koy jënd importé nga sol ko 10 ans. 10 ans dàll bi du yàqu. nga jënd benn dàll cordonnier non seulement coupe bi niñ la koy présenté ci photo. du nekk exactement loolu ñaata yoon la nit di commandé sur Facebook wala commandé sur WhatsApp benn peeru dàll cordonnier ñu won la benn photo ne la la dàll bi mel. nga ne ok daal bu ñëwée noonu lay mel dal bi ñëw c'est le diamétralement opposé de ce qui est sur la photo mm-hmm. chaque jour ma ne leen mais bu fekkee ne da ngeen di jaay seen produit ngeen ne yéen artisanal ngeen di def mais wane leen produit bi tel qu'il est mm-hmm. la personne c'est elle aime ça elle va l'acheter moo gën nga jaay nit ki loo xamante ne c'est imaginaire mu ñëw gis ko mer dina ko jël parce que jël na ko ba pare du ko sol da koy mujj saraxe bu paree waxal na mauvaise publicité ba pare ñoom ñi nii kii par exemple man le jeune là ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait tey quand tu fais un travail lépp dafa am chaîne. Mhm. yow tey yaa ngi nekk cordonnier peut-être le fait que aussi mu nekk ci benn entreprise di liggéey moo tax peut-être xelam mën a màcc par rapport ak loolu noonu. Mhm. tey il ne s'est pas arrêté juste à faire sur commande. day defar di exposé secondo dafay jaar ci internet bi pour jaay ay produits yam tout ça c' est des yoo xam ne da leen di permettre ñoom tamit ñu valoriser seen produit mën a gën a gaaw a jaay mais loolu pour mu am dafa am sérieux boo xam ne dafa war a am ci ñoom ils font un excès des fois nga ko defar mais buñ la ko joxee boo ko tiimee da nga ak man récemment rek maa ngi naan benn da ngay foog ne non mais al man am nay malaakis am nay malaakis yoo

Euh, am na man yeneen ma jënd yoo xam ne ñoom jàngal mais ma si presque mois. mais c'est pour te dire que mais que Sank ci man damay jaay yu léegi man man ko bëgg rajouter avant que di parce que il faut ñu mhm. euh, il faut créer nañu environnement bo xam ku nekk liggéey bi nga yëngu mais condition bi mooy nga def lu wóor. sûr lu baax qualité. Mhm. surtout nga jaay ko ñëpp boo xam nit mhm.

defaloo lu baax nit ñi pour jaay leen ko boo ko defee benn yoon boutique bi ci tëj la jëm bu baax fekk investir nga ci sa boutique bi loo xamante ne perte nga ciy def mooy loolu léegi nag genre yu mel nii dañ leen di encourager aussi tamit di ñaaxaat ñun suñu bopp nañ ñun xam nga lan mooy suñu problème ñun sénégalais nañ ko wax dañoo complexé am na ñoo xamante ne am nañ kersa wax ne daal lu uude laa sol mhm. te pourtant daal lu uude dafa baax dara uude moo war a defar daal sax uude dafa baax loolu seen liggéey am na ñoo xamante ne il préfère dem jënd benn dàll cinquante mille francs que ñëw ci uude bi nga xamante ne seen réew la nekk jënd ci ñoom benn dàll bu vingt mille francs loolu lan nga ko mën a man fii laay jëndee man voilà mais nañ def lu baax nañ leen jàppale suñu bopp jàppale ni ñoom it nañuy def lu baax Seydina man yaakaar naa ne inconscient wees eh, weesuwul nga ubbi sa boutique ñëw di si def lu bon non non man loolu mënuma kaa xalaat est-ce que xam nga laaj balaa muy tëj àll si tu me le mhm. permets ah ñoom du du uude bi ci boppam mhm. du mooy problème bi de dañuy ñëw am ay apprenti maanaam man sëy naa ma sama doom nekk ci koñ liggéeyul ma yóbbu ko ci àll pour mu jàngal ko métier mm-hmm. àll dina ko teg ci yoon mais booy bi au lieu mu jàng métier day wut xaalis. man nag loolu laa d'accord boo indee sa apprenti apprenti dafa am suivi doo jël sa apprenti rek bàyyi ko ak ay commande jàmbur yoo xamante ne moo la mën a jural leneen ëllëg. apprenti da nga koy jox muy def ay finition naan ko dil xoos lii heure añ bu jotee nga yan ko bool bi mu dem añi xam lan mooy métier mm-hmm. doo ñëw rek ñu jox la benn dàll bu jar vingt mille francs la defar ko quand même mm-hmm. apprenti dafa am fu muy aw mm-hmm. da ngay yi ngay xool toj sa xol bi ba nga xamante ne boo toogee ci ba pare defaree da ngay defar lu

ñu koy bëggee bu baax ah, waaw euh, sëñ Cheikh Anta borom gaawaan soxna moom ak soxna Maguette ak Moussa Ba nee na nag Mayte moom yeewoogul moo tax sànq nga naan ko ay 1900 xaw ma <laughs> yeewoo non léegi yeewu naa ah, ah, ak kabaay ngàkk blende ñu ngi koy nuyu ak Gaynde Fatma Seck ñu leen di bëggee bu baax